beneen bi dañuy gis ni làmb ñu bari yéen sax gis nañ leen léegi association des sage da gis dañuy feebar bu ñu feebaree dañ leen di ket demande aide bi te loolu yëpp ci làmb te ñu bari ñu ngi doon wax làmb mënoon naa weesu fii gis nañ leen sax ci affaire association des sage waaw euh, association des sage li ma ci wax rek maa ngi fa euh, je le vice porte-parole donc euh, mu nekk association bu am solo. association boo xam ne dafa dajale magu làmb ñëpp ñi nga xam ne mës nañu takk ngemb te bàyyi bëre mooy yaa xam nga nekk fii wala nga nekk bitim réew dajale képp koy jeune nekk ci réew mi ah te bàyyi bëre at bitim réew ñu dajale leen même boo nekk jeune bàyyi bëre nekkatoo en activité ubbil nañ la seen bunt te ñi ngi dox ci social ñi ngi organisé wu ñi ngi liggéey ñi ngi def lu baree bari bari bari bari ba ci feebar yooyu ngay wax sax tax na tey loolu moo gën a tax association des sages euh, formé wu muy mag ñi nga xam ne dañuy feebar wala mbër yi nga xam dañuy nekk ci carrière am ay problème te amuñu kenn ku leen jàppale tey philosophie boobu ci mentalité boobu la association des sage sosoo di dajaloo parce que dañu doon dajaloo ku nekk di génnee sa poos loo am loo am ñu dem jàppale diw ku am dëj ñu am loo am loo am ci loolu la sasoo ci social la sosoo te ñi ngi ci te boo xoolee tey dem nañ ba def couverture maladie universelle ba am ci mille cartes tey ñi ci enregistré wu ñu bëri defe naa ne bientôt ñu jot seen carte tey ci mentalité boobu la association des sages sosoo donc dox ci social dimbalante suñu biir mbër mu am problème ñu jàppale la mbër mu nga xam ne tey war nañ la mën a jàppale ci communication ñu jàppale bu dee ay moyens wala ci feebar ñu ñëw taxaw la loolu mooy association des sages. association des lutteurs en nga nekkoon mm. ngeen doon combattre lu am solo. ñu gis ni Balla Diouf moom moo nekkoon secrétaire général bi yow lañ ci gisoon Khadim Gadiaga suñ papa Kayrem ak père Tafa Gueye li tax nga jugee foofu noonu naam sax boo fa jógeewul comme ni ni nga ko jëlee woon au sérieux dañ doon gis Balla Diouf di révolté wu mais léegi Balla dafa sedd association des sages asafula association de lutteurs en activité existé na wala existé to waaw effectivement association des lutteurs en activité mi ngi existé bu baax a a baax a baax a baax mi ngi dox euh, président bi mooy Gris Bordeaux donc euh, ñoom Kona ñoo fa nekk ay Kontila gars yi Balaasana ñu bëree ngi fa mbëri yi bëri yëpp ñu ngi fa donc association la boo xam ne euh, li ko wundu mooy les lutteurs en activité mooy mbër yi nga xam ne ñi ngi en activité bàyyeeguñu bëre association bi ñooñu lay reconnaître du dëgg ñun nag bañ ci nekkee bàyyeeguñu woon bëre mais bëreetuñu woon donc euh, bañ demee nag ba bàyyi bëre. légitimatuñu di nekk euh, association des euh, des lutteurs en activité parce que on ne plus en activité même bu ñu bokkee ci làmb nekk ci làmb nekkatuñu di exercer di bëri di compétir donc te association bi mbëri yi bëri di compétir la reconnaître donc ñun bañ ci nekkee gunge suñuy rak ànd ci ànd ci ànd ci ba ñu dem ba nga xam ne tey ubbi nañ ay bunt yu bëri ci làmb mooy tey de faire nañ face at CNG at dirigeant yi nga xam ne ñoo fi nekk te ci règlement yi nga xam ne ñoo tënkoon mbër di leen sonal di leen bunduxatal ba taxoon mbëri yu bëri di daw di génn réew mi mbëri yëpp di immigré tey loolu taxaw nañ def fas Euh, ba nga xam ne tey ay solution am na ci même bu nekkul à 100 pour cent def nañ fi ay assises nationales donc yaatal nañ CNG bi donc yenn réglement yi yenn dagg yi kenn déggatu ko ci làmb donc ñun nag li ñu war mooy dem taxawal suñu beneen kuréel boo xam ne day yëngu ci làmb di dimbali ñi nga xam ne ñoo nekk ci làmb tey loolu moo waral tey sama postu secrétaire général bi nga xam ne moom laa yore woon ci association des des des lutteurs en activité donc ma toog ba xalaat ni kat eh, gunge bu yàggee day soof man ma xalaat donc jël sama décision lu lu du lu ma kenn wax du lu ma waxtaan ak kenn xam ni kat yoon la war nañu may place suñu rakk yi nga xam ne ñoo nekk suñu ginnaaw te am potentiel tey jox leen siège bu ñu toog ba pare encadré leen nekk seen seen ginnaaw donc noonu lañ ko doxalee donc suñu rakk yee ngi fa ci lu ñu nekk ñu ngi koy yëg ñu ngi leen di encadrer nekk seen ginnaaw ñun nag ñu ngi observer di xool xeex yi nga doon xeex yi nga xam ne lu ci am lu ci am évolution lu ci amélioré ak lu ci amélioré wul toujours en tenir compte que toujours am na ci lu ñu nekkoon am na lu ñu doon demandé amaguñu lépp am na lu ñu am mais toujours voilà quoi ñu ngi nekk di prendre note di xool saison éventuelle saison yi ni muy demee. ñu bari na li tax mu rocceeku ñëpp xam n Balla Diouf nit ku dëggu la du dox ci caaxaan ñu bari na dañoo dem ba benn instant la nga doon nga gisoon. tax nga bokk ci gisatoo ko ci moo tax ndax yow dañ daan gis guerre bi dañ ci doon saf sàpp te boo xasee ba dugg ci benn affaire doo reculer Balla Diouf ñu ne dafa dem ba gis ci loo xam te ni neexatu ko ndax gars yi doon wax commencé di rocceeku Balla ne dama ciy génn. non le problème euh, n'est pas ça c'est que man dama nekk ni koo xam ne lu may dugg dama ciy dugg objectivement dama ciy am vision am ci lu loo xam ne tey mooy tax mu ci jaral ma may takk sama dàll jóg di dem. donc bëgguma euh, nekk lièvre kenn bëgguma rek ñu ne hop aywa kaa leen xeex rek nga dem commencé terreur yi non man lépp lu may def passion laa koy defee lépp lu may def ak conscience laa koy defee lépp lu may def tamit day am fu ma koy teg donc tey bu may jóg di xeex loolu may xeex noonu tey bu ma xeexee ba am ci ndam lan laa ci lan lan moo ciy topp du dëgg tey bu ñu demoon tey ne non na fi CNG jóge CNG jóge tey buñ koy xeex dëgg la CNG war na fi jóge mais yan objectif la ñu am bu fi CNG jógee lan lañ fiy teg naka la làmb di doxee at kan la ñu xalaat ni kat moo jaadu pour ñu teg ko bi at naka la fexee reg CNG jóge fi CNG bu fi waree jóge daf fi war a jóge ci ay conditions ci ay yoon du dëgg man ci genre xeex yooyu laay xeex xeex bu loyal xeex bu logique mais na fi jóg jóge na fi diw jóge na fi diw jóge ah bu fi jógee ah nga fi def. du dëgg mais ñun ñëpp làmb monde làmb ñëpp nangu nañ ni CNG daf fi war a jóge CNG dafa war a changer parce que 25 ans dafa bëri ñëpp nangu nañ ko mais du ay xeex du lépp xeex moo koy réglé pourquoi pas proposer ay solution pourquoi pas def ay élection pourquoi pas organiser monde làmb ñëpp ñu xool li nga xam ne moo gën ci làmb ñu def ko mais na fi jóge na fi jóge rek noonu noonu noonu noonu te tegoo si dara tamit euh, amul sens man du ma xeexee noonu man lépp lu may dugg dama ciy am vision dama ci am objectif donc euh, mu doon passion lu ma gëm donc euh, sama conviction laay demee donc lépp lu ma am conviction mu leer na ma ne lii jaadu na ah, ma dugg ci parce que ba ma ciy dugg dugg kenn duggalu ma ci man maa toog gis ne li mbëri di dund metti na dund naa ko samay mborom dund na ko ñu bëri amuñu tey possibilité génn tey di ko wax wala di ko kaas man nag yàlla dimbali na ma ah lépp lu ma bëgg a wax dinaa ko wax ci cër at ci respect ba nit ñi déggee ni ma ko bëgg a waxee mais conviction laa ciy demee mais lii nii nii fi làmb toll nii gisaguma tey lu fi jar jóg di xeex wala dara tey li ma gis mooy tey ñuut ay mécanisme yoo xam ne tey dinañ toog autour de table at monsieur le ministre mooy mondu làmb ñëpp ñu ngi bëgg ñëpp CNG jóge fi def ay pétition dem teg ko ci loxo ministre ne ko kat monde làmb ñoo def ay pétition kani kat ñi ñuy jiite buggatuñ ñu jiite ñu ndax lii at lii at lii at la waaye xeex ŋaawi ŋaawi gi ba kañ ay mag lañu léegi ay solution war na am ku ci nekk am nga solution nañ def ay mémorandum jël idée yeeg solution yëpp teg ko ci at li ñuy proposé ah li nga xam ne tey mooy état Sénégal ne leen kat ñun lii lañ proposé waaye na fi jóge na fi jóge na fi jóge rek lan nga fa teg yow su ma déggee kon euh, président Alioune Sarr est-ce que Balla Diouf tey gis na koo xam te tey ba suuf jóge woon dam ko fi teg parce que dégg nga lu mooru ñu bari ñi ñaa ay Tyson am na ñu bari sax d'accord ñu que ni mbër koo remplacer yow que am nga koo xam te ne tey bu fi jugee woon am na Balla Diouf am na ci kenn koo xam te am na ci yaakaar. problème du Alioune Sarr sama problème du ay problème personnel problème mu système mu làmb la suma problème c'est que il faut pas que ñuy confondre. que ni Alioune la la monde làmb amul problème non c'est le système bi nga xam ne moo tënk làmb ah at ni nga koy doxalee te leerul kenn CNG amul kenn ku fa xam dara yooyu moo sonal nit ñi yooyu moo war a changé wu ah, muy Alioune Sarr jóge fa ku fa mënti nekk bu fa lii desee yaay gën a piir Alioune Sarr système bii bu fa continuer képp koo fa ma ba fa indee président Macky Sall sax teg ko fa du mën a doxal parce que lii rek moo fa am dañu ay borom xam-xam la ñu soxla problème bi du ay diw du ay mbër ay Tyson wala Jean wala Paul làmb ay borom xam-xam la soxla yu sell la ay sportif de haut niveau la ñu soxla ñu ñëw pour développer sunu làmb parce que tamit làmb war nañ ko war a internal interna internationaliser léegi parce loolu mooy yoon bu ñu demee tey ba MMA ñëw fi ba suñu mbër yi tey mbër yi nga am potentiel ñu ñu gën a yaakaar ci làmb tey di def seen xel ci MMA tey war nañu jóg ñu organiser waat làmb làmb dañ ko war a organiser waat mais du ay problème personne du ay problème mu genre wala pôle système làmb mécanisme làmb la ñu war a jël moteur bi sànni ko fee tegaat ci moteur bu bees tàkk at ay règlement yu bees ay conditions yu bees boole kook mondu làmb ñëpp. gis ci seen bopp ba pare ànd ci loolu mooy loolu mooy affaire bi mais du ay problème mu Alioune Sarr wala Jean wala Paul. kon dafa mel ni 109 bi d'accord nga ci. mais loolu mooy yoon 109 loolu mooy yoon ñun ñëpp d'accord nañ ci ñun ñëpp monde làmb ñëpp d'accord nañ ci mais nag wat gaal ak yëgoo du benn group ñooy toog fee wala leneen lu ñaaw lu bon lu nekk ñu wax ko non tollootuñu foofu ci ay idée at ay solution lañ toll. mais mais foog monde làmb bëgg dajaloo bëgg a gisee bëgg a xoolkat tey at lu ñu munti wax ci senegal Alioune Sarr luñ ko mën a waxal am na lu mu fi def luñ ko mën a même erreur yi bëri bëri bëri yi mu def dëgg la ñu ci mais am na lu mu fi def làmb toll na gudd yoo xam ne bu fi nekkul woon du baax dagg nañ ko fi gërëm ko fi ba corona bi nag da ngay ree ba tas de boo tisoole sax ba damay bëgg a tisoole sax du ko ñeme ndax corona bi du dëgg am na lu mu fi def mais tey kooku mérité na au moins un porte de sortie ñun Sénégal lañ nekk te dara warul ñaaw ñun ànd ñoo ko sa Alioune ci li muy def ànd ñoo ko CNG ci lu muy def mais nit ku nekk fenn vingt cinq ans at lu mën a xew ah, war nañ ko nag jox mérite jox ko li mu mën ba pare ne ko nag papa yoon bee ngi noonu demal nopp lu ji waaye nga ne tey xeex rek gat sa gat sa moo ko fiy jëlee. non mais xeex moo warul am xeex moo guerre lu mu metti metti lu mu yàgg guerre mondiale fan la mujjee boo fi xeexee xeex ba suba fan ngeen di mujjee mm. du ci toog waxtaan lu tax mënuñu ko njëkke nañu wut ay solution ba pare wut ay proposition at ay mécanisme yoo xam ne tey lu ñu naqari ci làmb yëpp dinañ ko def ba pare fexe dajale monde làmb yëpp ñu def ay pétition xam ni kat ki fi nekk bëggatuñ ko tey loolu yëpp Sénégal la ko gis Alioune Sarr nañ waxante dëgg monde làmb at Sénégal ñëpp nangu ni Alioune Sarr dafa war a dem mais na dem ci dem bu gën a rafet. kon donc su ma déggee Balla Diouf muy xeex beeg werante bi jaru ko parce que ñun ñëpp daal ñoo bokk li ñu bëgg Balla CNG ak arbitre ñu gis ni fan yi wax ci bari na si ñoom arbitre kii si toor rajee nañ ko à vie Malick Ngom cinq ans Dramé tamit noonu kii di euh, Babacar cinq ans yow loolu ba nga ko déggee lu mu def ci yow ak bëgg jàngat nga ci am. ba mu ko déggee nekk na lu mu metti parce que ci làmb lañ bokk te ay arbitre lañ yoo xam ne monde làmb xam nañ leen seen jeunesse ñëpp ci làmb lañ ko passé ba toll fii ñu toll et je pense que li ñu def mérité wul ñu leen di rajo mérité wul sax dàq xam nga ñoom lan lañ mérité woon. ñu woo leen waxtaan ak ñoom xool seen mbébét xool nuñ ko mën a saafara liñ ci mën a saafara tiswit ñu saafara ko luñ ci mënul saafara tiswit ñu ñu dóor dàqee ak ñoom comme ni ñu yàgg def ak ñoom du dëgg mais euh, arbitre yi euh, ma leen di wax rek li ñuy xeex normal la parce que injustice la yoon la assurance ak yenn détail li ñuy xeex ak yooyu yëpp lépp luñ ci wax ñoom jaadu na du dëgg mais lu tax defuñu ko bu yàgg lu tax ñu xaar ba léegi di ko def pourquoi ba ñu nekkee di def ay assises national pour l'intérêt de la de de la lutte ah nga xam ne tey lépp li nga xam ne moo doon càmbar ak nouveau réglement yépp foofu lañ ko doon tënkee lu tax ñoom waxuñu ko woon foofu. lu tax ñu bàyyi ba loolu yépp weesu ba ñu def remaniement CNG ba defaraat ba tegaat ba changer ay affaires ah ba tegaat ñoom ñu door a génn léegi di ko wax man loolu mooy sama problème ci cas mais les arbitres def dama ci ànd ak ñoom dama ci ànd ak ñoom parce que. bañ bu ñu ko defoon bu njëkk bu fekkee ne ñun ba ñu jógee faire face à à à l'instance dirigeance ñoom kat seen seen xeex bi lii leen naqari nii waxoon nañ ko xëy na tey les données vont changer mais là actuellement li leen dal metti na kenn yéenewu leen ko parce que ay nit yu baax lañu ay sportif vraiment euh, yu làmb yu làmb fonk respecté leen bien vrai que même bu ñuy def ay erreur mais l'erreur mais ay nit lañu mais xeex dafa am yoon tey. wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne dañ ma wax fekk wax jotagul mu dellu jooy ñu ne ko looy jooy mu ne dañ ma wax fekk wax paase je pense que arbitre yi fu ñu waroon jooyee seen jooy fu ñu waroon taxawee xeex combat bi mooy ba mbëri taxawee monde làmb taxaw faire face à CNG pour kat li nga xam ne mooy injustice tey injustice lañ doon xeex te lii ñuy dund injustice la tey bu fekkoon ne injustice bi at bële ne boole woon nañ ko du jàmm du am man loolu rek mooy sama problème ci cas mais ànd ak ñoom seen combat maa ngi souhaité ñoo am ci ndam parce que mérité wu ñu raje mérité wu ñu sax dàq parce que li ñuy kaas seen droit la te defe naa ni Sénégal dëkk bu démocrate la pourquoi làmb démocrate làmb dañ ko war a démocratie mu démocratie bi di ci jaar donc loolu la demee donc nag maa ngi leen di souhaité wax dëgg yàlla ñu bàyyi xeex bi et puis fexe dajale mu rencontré monde làmb ñëpp ku ci nekk ñu xool. problème yi nga xam ne tey moo nekk ci làmb moo ne làmb ba làmb mënul dox ñu xool def ko ci ay mémorandum def ay pétition waxuma sax ministre bi mais ñu yóbbul ñu fexe sax parce que mënu làmb tey bu ñu taxawee soxla président de la république no président da leen di recevoir ñu jël suñu mémorandum jox ko président de la république wax ko suñu problème mu làmb ñaan ko tamit état bi jàpp gunge làmb parce que tamit boo jëlee ay milliards investir ko ci làmb amul benn accompagnement day metti donc yooyu yëpp ay ay problème la yoo xam ne yu ñu war a monde làmb yëpp war a tënk def ko ci ay mémorandum boole ko suñuy idée ak suñuy suñuy proposition def ko ci ay mémorandum laaj audience président de la république dem seeti ko wax ko li nga xam ne mooy suñu problème ci làmb parce que moom rek ko mën a régler je pense que ministre bi actuellement làmb da ko doole Alioune Sarr euh, ministre bi ak Alioune nee na ko bandum la def yow kon gisoo loolu non man loolu yooyu duma ma ci wax parce que du ma nekk di wax ay ministre nii wala naawa parce que ministre bi kat mooy ministre de la de de de sport ku mérité ñu respecté ko respect bi nga xam ne tey moom lañ koy jox mooy sportif la te mi ngi déglu sportif yëpp mi ngi jéem mi ngi fexe mais peut-être am na am na nu muy doxalee moo peut-être ànduñu ci mais am na yu muy doxalee yu bëri ànd nañ ci du dëgg parce que ministre bu jeune la te mi ngi fexe mi ngi jéem pour sport bi avancé mi ngi jéem tey tëjuwul ay buntam tey ku ko bëgg gis di nga ko gis peut-être tamit décision yi muy jël rek lañuy parfois la ñuy lañ dul ànd mais problème mu làmb du problème mu ministre bi problème mu Sénégal la problème mu président de la République la donc la mbër yi dajaloo monde làmb dajaloo tënk li ñu bëgg ci ay këyit ah, dem seeti président de la wax suñu problème jox ko ko toog déglu ko je pense que loolu mooy mooy mooy moo dafa war a rafet noonu la xeex amul sens dañu xeex corona bi xeex bi gën a am solo nag mooy ñu xeex corona bi ñëpp jàkkaarloo joxante bopp joxante loxo ñu xeex corona bi loolu rek la moo fi jar a xeex beneen xeex amatul sens. Balla duñu pare te duñu wax instant bi làmb ñëpp xam dañuy dund làmb grand contre petit nag nga ko gisee. waaw grand contre petit defe naa ne am na fépp. bu booy dégg grand contre petit ci football nga koy dégg du dëgg marié célibataire yooyu ci football nga koy dégg mais làmb ji noonu la loolu la demee léegi grand contre petit la parce que petit yi dañuy màgg grand yi tamit dañuy dem ba benn moment war a jox loxo petit yi pour ñu mën a fekk si leen donc bu grand contre petit amul ah kon euh, euh, transmission du am euh, entre ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw at ci suuf parce que grand contre petit foog muy am parce que petit yi foog ñuy yéeg te pour ñuy yéeg foog ñuy laal grand yi donc nag noonu la demee donc dafa neex dafa war di sax grand waaw naa ci grand compte petit mooy buntu bi mooy buntu xale yi pour ñu dem fekki mag ñi. <laughs> am nga soxna. waaw aw ma <laughs> woon naa donc la instant yi nag damay jël sama temps ma xool bu baax bi. Hmm. Hmm. non célibataire philosophie la rek ah fari célibataire moom. c'est que ñi traumatisé wu ci ay am jabar dama war a am jabar màgg naa nge ñooñ ci ñooñ la célibataire di metti mais ñi nga xam ne célibataire dañ koy dund at philosophie at beaucoup de responsabilité et je pense que dañuy jël seen temps rek xool parce que loo xam ne du benn fan du ñaari fan waroo tëb tëb rek aveuglement dugg ci dañ ko war a xool donc ñam nañ ko ñamaat ko donc dañuy jël sunu temps rek xool xam nga surtout liggéey bi tamit xool xool avenir bi ba pare parce que loo dugg dugaat moom du dëgg léegi nag daay am objectif objectif yi nag mooy euh, projet yi liggéey ba pare xam nga xool vraiment bu baax vraiment takk ko sëy moom parce du benn fan du ñaari fan instant yi nii nii nii nii nii may waxee ak yow bëgguma kenn bëgguma kenn instant yi may wax ak yow bëgguma kenn amuma kenn nekkuma ci lenn hmm. sama liggéey hmm. samay entraînement nekk sama coin confinement instant yi amul bëggante confinement moo fi nekk tëju instant yi bëggante amul confinement total amul nii amul naa wëratul wóoratul de wëratul sauf qui euh. waaw sauf qui di ñaan yàlla sénégalais yi toog seen kër yi encore une fois dañ mm. toog seenu kër yi mm. parce que Sénégal neex na te dañoo bari jàmm te wax dëgg yàlla feebar bii du jàmm te du lul jàmm nag jàmm ko gën euh. jàmm ji fu mu ne nii mooy toog seen pooju ndey ñi ñii toog seen pooju baay ñi ñii toog seen i pooju nijaay yi ñii toog seen pooju tànt ñi amul yooyu yëpp nag nañ tëju seen biir nekk bu ñu opéré doo xool benn bët ñu gisul lu ñu xam waaw da tëjuwaat noonu la demee Sénégal jëm kanam jërëjëf kontaan naa trop. Mm. Mm. waaw di ko remercier ah bu baax a baax muy Balla Diouf waaw mu nekk koo xam te ne kon di ma ko wax suma grand la suma xarit la naam day nekk ci man moom nee naa dama koo sonal ndax maa koy fekk ci kii man ko dama lay jël force affaire yi te lépp nag baaxam moom moo ko wane parce que ñun ku ko ñu estimer la ndax ci lan day kaf day ree xam nga bu ñëwee kaf ak gaay ree ba pare di la conseiller di la suivre kon nag dañ koy ñaanalaa ah jàmm moo xam ne bëgg ci li nga xamante ne moom mooy jàmbar wrestling ak jàmm nga def ci lu kawe sa njot dem ba ay roi des arènes di ci di ci génn yàlla mën na ko yàlla na ko def ci barke Seydina Mohamed les internautes li lañ leen indiloon kon dañ koy waxee rek lépp loo leen bëgg dañ koy bëgg mais nag di ko béggawaat bu baax a baax muy l'infatigable muy le messi muy Bassirou maa ngi koy béggee bu baax a baax di béggee képp koo xamante ni rek yaa ñuy suivre à travers partout dans le monde mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk national à international ñëpp ñu ngi leen di béggee ndax gis nañ ni ni ngeen ñu yaatalee ak li ngeen ñuy suivre bu ñu jógee ci Balla Diouf nag dañuy fas yéene xoolaat keneen koo xamante nii rek internet yi yéen a ma ko sant ma jëli ko nee naa leen maag yéen commencé guñu bu baax a baax mais Bassirou dafa am sama benn doom boo xamante ni dama koy remercier bu baax a baax. sama xol la fii laa ko def muy Satou Dia maa nga koy bëggee bu baax a baax yow yaa bëgg sa bàjjen yow yaa ko safoo ndax nee naa la Basiir lu rafet rek daan ma bàjjen am tey nag moom moom ma habillé quoi tey sama doom moom moom ma habillé di ko ñaanal jàmm ak tout la famille Dia di leen ñaanal jàmm ak salaam kon ni ko la waxee loolu jàmm jàmm ko gën kon yàlla nañu yàlla may jàmm Fatima kese.